بسم الله يلم الحاج العالمين jërëjëf sëriñ bi ñi ñu bokki taalibe yu dëggu yii jiituma ci wax ji doyoon na sëkk waaye waxi Cheikh Abdou Samad dara da ci mënta dolliku li nu ci bëgg xam lépp ngi ci biir waxam ji kon dara da ci mënta dolli ko lu dul nag rek sant ak santlu nun di gën a waat ci noonu muy sant rek sëriñ bi cant gi nag dëgg la mën nañu jéem mu dëggu ci xol yi gëna jëmit mu dëggu ci xel yi gëna jëmit nak mu dëggu ci jëf yi nun sant sëriñ bi rek mooy suñu wartif ndax fàggul nañu lépp dëgg la yàlla moo nu bind andi nu fi dinu nu jaamuloo nu di jaam ñu war jaamu kon bu bëggee sant sëriñ bi il faut que nu nangoo jaamu sunu jaamu nun mën nañ cee fas jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi ginnaaw loolu moom jaamu yàlla moom sañu nu ko bañ kon sunu jaamu yàlla nun mën nañ cee fas liggéeyale ko sëriñ bi luñ ca mën a dolli nag ca lanu sunu borom bayee nun ca mën a dolli nag ci jël ko liggéeyale ko ko nu dolli ko ca kon sunu cant nun foofu rek la war a nekk ak cant dong lay dolli ci wax yi Cheikh Abdou Samad ji góor góorlu ci sant sëriñ bi fa tabaarakallaahu paggu paggu paggu téef bi nu sëriñ bi faggul ci nu bëggu ko ba mu gënal lépp nu doyloo ko ba mu gën ba mu gën noo doy lépp loolu mënoon naa doy waaw nag sant sëriñ bi ci nun wurti am fu mu yem bëgg gi moom ak doyloo gi moom moo nu ko faggul am nan ko doy na sa kiitam tey ëllëg waaye nit mënut a toog loxoy neen li sëriñ bi defal war noonu ko sant sax ca sant ga faw feeñ moo ngi àdduna yóbbaale ko suñu yóbbal ci alaaxira di sant Sëriñ Tubaa kon nanu góorgóorlu bu baax lañu ci gën a dimbali nag te yombul muy waxtu wu nekk muy jéem a gën a xam sëriñ bi muy waxtu wu nekk muy gën a jéem a dund sëriñ bi lu gën a xam sëriñ bi gën a raw lu ñu ko gën a dund gën a kawe ñëpp kon foofu la liggéey bi nekk ku bëgg liggéey foofu la liggéey bi nekk na ni jéem a xam sëriñ bi sax ca dàkk te di ko jéem a dund lii sëñ Abdou wax sëñ Abdou Samad wax yi mu fi nettali fii loolu doomu aadama mënu ko waaye nu nu jël sëriñ bi teg ko sunu kanam ak nam nam doon doxee digg ma boroomam digg ma yonent bi ak nag doon doxee digg ma boppam nanu fab sëriñ bi ginnaaw lu ñu ko gën xam gën raw lu ko gën a dund gën a kawe ñëpp foofu nekk amaa moom ci boppam dina sant ko rek mu war a doon sunu liggéey yaar buñ ca góorgóorloo dañ koy gën a jege muy gën a bég ci nun yaar nun ca gën a góorgóorlu dañuy gën a jegeel boppam di gën a bég ci ñun loolu nag yaakaar naa ne murit loolu war na ko jaral lu ne kon yaar la ne war a góor góor gën a góorgóorloo danaa danoo bëgg sëriñ bi di bég ci ñun nu bëgg jege sëriñ bi tey ëllëg dañu góorgóorlu ci yar nañu jéem a set set set yi bàkkaar sunu képp kàttan yomb waaye nañ ko jéem ndax moo ni dolli ci sëriñ bi nanu gën a fonk xasay xasay bi mooy sunu xaas lu gën a fonk xasida yi sëñ bi di gën a bég ci ñun lu ko gën a jàng gën a jege sëriñ bi waxi sëñ Abdou Samad bi loolu yaar yooyu laa ci dolli nanu góorgóorlu bu baax ci jéem a set di set ndax lu ñu gën a set rek sëriñ bi gën a bég ci ñun lu gën a set gën a jege sëriñ bi te man ko xasida yi nag xasida yi moo nu war lépp lu ñuy lekk lu ne jàng xasida moo ko war a luy dalal xel lu ne ci xeeti ngar na yi jàng xasida moo gën gaaw noonu rek la demee foofu rek laa yem doo ci dolli dara rek laa ci dolli kon nan ko dégg bu gën dégg bu baax nan góorgóorlu ak lu mu jafe-jafe-jafe nanu jéem a góorgóorlu di diggan di set góorgóorlu ci xasaayid yi di ko sàmm di ko jàng def ko mu sunub dund ndax mën na ko loolu rek la li nag sa sa yëpp sax moo tax ma fa bàyyi li ma nar wax. waaye. maa ngi jégalu maa ngi jégalu déglu leen yéen ñëpp sëriñ bi ne maa ngi waxal bokki bi yëpp dafa am lu ñu ñaan kenn ku ne ci noonu am na xasida goo jàpp na mooy sa xasida ni murit bu ne mel nga xam ne doomi Sëriñ tubaay yëpp nga fonk te gëm leen waaye da nga cay fab kenn mu di sëb nun ñi ku ne am na xasida goo féete woo defe ne mooy sa xasida waaye loolu dañ ko coobarewu def ko rek tey jii nag dañ lay ñaan nga jox nu goo xam ne danga naan jox naa leen digal xasida sàngam goonu jox rek ñu foog loolu sëñ ma ko goonu tibbal rek ñu sëñ ma ko nooru daari yi ngeen def doy na sëkk nooru daari nooru daari moom nooru daari moom am naa am naa ci am naa ci firnde am naa ci firnde am am naa am naa ci am naa ci firnde nooru daari nii am naa ci firnde nooru daari nii am naa ci firnde sëriñ Cheikh Saalihu moo ma ne woon ko jàngal nooru daale ni Cheikh Saalihu moo ma ne ma ko jàngal ma di ko jàng bi ci mujj gi ci mujj gi bis bu ma jàngal ko ko bi ma ko gisatul te xat xat yi bari aji mu juree ma jàngal ko ko boo koy jàng doo ci fas dara Cheikh Saliou rek laa koy jàngal moom laa koy lëggee waaw waaye xasida yi xasaa yi rek laa wax waaw buñ ci bu ci wóor ni sëñ bi ko bind koo ci jàpp waaye nag lu gën a bari gën a baax loo ko gën a yaatal mu gën a baax waaw li ma doon li ma ci doon nag moo di loolu dafa dugg lépp ci wax Cheikh Abdou Samad sëriñ Basiru dafa am bis mu maag beneen mbokkum taalibe muy waxtaan ak nun ci sëriñ bi mu lam nu jëkk nett li ci biir wax ja xam koo xam ne dafa ñëwoon sëriñ bi di ko di ko jaaxle daal bëgg mel ne ku bëgg xam sëriñ bi lu mu doon sëriñ ba mu yàggee ba yàgg sëriñ bi ne ko diw bo yoon dalli nañ di ko doxee ba xar do gis ku melni man <laughs> ah sering bi sering serigne Bassirou mo waxon fulam ci wax jooja la dem ba tang hal ne waaw sëriñ bi sax mu am na ful la foo ko toll rek mu toll la fa. day waxtaan day wax ba yàgg mu gën a tàng ne waaw sëriñ bi sax am na ful la foo ko toll rek mu toll la fa kon bis bii leer na taxaw sañ xamsatu bii leer na naññ leer na naññ. sëñ bi foo ko toll mu toll la fa leer na nañ moom nag dañuy gën a ñaan rek waaye sampu sëriñ bee waaye dañuy gën a ñaan nag bu gën su koo sàmm bàyyi ko fi lu yàgg mu nekk ci liggéeyam bi fa tabaarakallaahu alhamdulilahi rabbil alamin lépp pàggu sëriñ bee taalibe yi bëgg na sëriñ bi lool te boo ko di seet da ngay defee ne gone yi sax yi jóg dëgg ñoo ko gën a bëgg da boo ko di seet ñëpp ko bëgg taalibe ko bëgg waaye boo ko di da ngay defee ne gone yi sax ko a bëgg loolu nag loolu mbir la loolu mbir gone yu ndaw yi ak jigéen ñeeg ñëpp gone yu jigéen ñi boo ko di seet da ngay defee ñoo gën a bëgg sëriñ bi loolu mbir la mën naa dalal waaw sëñ bi fag faggul nanu lépp waaye bun na yàcc bun yàccaaral bun sàggan nanu jiima sant sëriñ bi ci ni mu bëggi noonu rek la demee jërëjëf ñaan